d'information euh, tey nag li ñu fas yéene waxtaane muy xibaar boo xam ne démb la génn euh, ci conseil des ministres du PECO restauration du poste du premier ministre maanaam euh, poste premier ministre ba nga xam ne dindi woon nañu ko ay jamono ki nga xam ne mooy njiitu réew mi jël pexe fas yéene koo def procédure d'urgence ñu indiwaat ba poste premier ministre ndax nag fast track bi dafa échoué wala ay jéego yoo xam ne dafa ko bëgg indiwaat loolu ñu fas yéene le doyen nekk journaliste formateur nuyu nañ la dalal ci plateau bi monsieur Bakhoum. maa ngi lay nuyu. Mhm. ñu ngi lay fay bu baax a baax alors ñu am fi également euh, Serigne Mbacke Ndiaye mu bokk ci coalition euh, benn Bokk Yaakaar am nañu mbégte dalal ci plateau bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, soxna Fatou di nuyu mbokk yi ma toogal ci kaw plateau bi. Mhm. di beral nuyu nag sama sama Serigne ndax. ginnaaw ñun Serigne Touba rek lañ yaakaar fu ñu fekkee njaboot tamit suñu warugar mooy jox leen rawatina nag bi nga xam ne dañ ko séq man ak moom. Mhm. kon maa ngi koy nuyu di sargal ay waajuram di profité wax nag gis nga bu ñuy wax euh, histoire PDS. Mhm. dañ naan Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dañ naan Serigne Sibérou Mbacke danañ Serigne Abdou Baaxe Mbacke danañ Serigne Bara Doli Mbacke. kon ku mel noonu bu ñu tasee ak njabootam. Mhm. vraiment dafa am ay cër yu bëree bëri ba dañ ko ko yore. ñu di ko mhm. delloo jukkal bu baax a baax. Mhm. Euh, am na solo ñu wax nga ko Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ñu am ko ci plateau bi député à l'Assemblée nationale euh, bokk ci parti bi di bokk gis-gis nuyu nañ la dalal ci plateau bi. maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di beral nuyoo Serigne xam nga daanaka moom a jaxasool sax naa leen waaye moom man ak moom yàgg na ñoo da ko PDS pare sama xarit la. di nuyu ñi nga xam ñoo ñu seetaan lépp di am na solo alors Abdourahmane Sow moom nag mu nekk coordinateur COS m euh, bokk ci société civile am nañu mbégte dalal la ci plateau bi. aouzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala rachafil seydina Muhammad wasallim euh, Fatou mbégte bi ñoo ko bokk. ci Turocos mhm. M23 donc on a un grand plaisir de retrouver les plateaux de Sen TV mhm. euh, di nuyu seen téléspectateurs yëpp di nuyu sama mag ma fi toogal di ñaan suñu borom mu tette suñuy kàddu ba lépp lu ñu fi wax mu tegu ci yar ak teggin mais tegu ci pas-pas te nekk njëriñu Sénégal incha allah euh, ni ma leen ko waxee li ñuy waxtaanee moom mooy restauration maanaam indiwaat poste premier ministre alors euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye annonce suppression bi ne annonce indiwaat poste bi bett nañu réew mi le président de la République nekkul di jouer ak suñu constitution wala institution yi. non xam nga <laughs> man Fatou coow li ci jug di sax moo may moo may jaaxal. Hmm. ndax euh, dafa am loo xam bu ko di fàtte. Sénégal ci wàllu doxalinu réew falu ñu ñaari nit falu ñu ñett ñu ñeent kenn la ñuy fal muy président de la République tuddoon na sengoor tuddoon na Abdou Diouf tuddoon na Abdoulaye Wade tey Macky Sall la kooku ñu fal. jox ko ay lenge moom moo am warugaru nu mu yaakaar ni su ko jaaree su fa jaaree yow nu mu yaakaar su fa jaaree. Mm-hmm. li ñu ko sant dana ko mën a def ci réew mi mu jaar ci yoon te na ànd ak jub maanaam li tubaab di wax légalité. loolu bu weesoo la ca topp mooy askan wi ànd ci la muy def loola mooy li ñu tuddee légitimité ci wàllu ci wàllu nasaraan te loola fañ ko mën a natte tey. mooy sama sang bii toog xam ne ñoom ñooy représentation nationale di assemblée nationale. toogal fa askan wi ñun ñoo leen fal. lu ñu fa dogal ñoom li ñuy jàpp mooy askan wi ñoo ci ànd. ak loolu nit mën di wax xam nga léeg dégg nit mu taxaw représenté wul kenn lu jubbu boppam. Mhm. wala xëy na parti am association taxaw na la askan wi nee nañu diw nee na askan wi dafa am nit ñu ñu tànn fal leen donc kooku ñu dénk bu jàppee ni yoon wii fa la war a jaar ngir mën a am li ñuy séntu ci moom. mu jaar fa fa lilaay alhamdu bu demee ba yaakaar ne yoonu gënul ci moom weneen yoon la war a jaar mu jaar ca gisuma loolu lan moo war a indi. waaw mais mais mais xam nga réew réew kenn mënu ko yoree ci boo gisee ne yoon bi baax na nga mel na kuy essayer mel na kuy tâtonner. mais réew yaa ko tudde tâtonner mais réew noonu dañ koy yore parce que ñi ngi jiite du ñu ay xar du ñu ay bëy du ñu ñu baal ma ci kàddu gi ay doomu aadama la ñu. àddina nag di dox àddina di dox ngay dox di ànd ak moom xam nga li jafe. mooy di dox di indi ay soppite yoo nga coppite yoo xam ni da koy teg ci yoon teg ko ci bëgg-bëggu askan wi. Mm-hmm. bëgg-bëggu askan wi nag benn moment rek la ñu am pour wane mooy élection. élection ba élection ngay mën a xam lan la nit ci xalaat fan la nit ci jublu kan la ñu jox bopp mais xam nga bu diggante ñaari élection assemblée fi toog di waxal di waxal askan wi président la République moo fi nekk di dogal parce que askan wi ñoo ko sant donc loolu franchement gis rawatina nag bi nga xamee ni ba ñu koy dindi. bari na ñoo nga xam dañ ne woon ñu ko dindi man ca jamono yooyu bokkoon naa ci ñi waxoon ni su doon man a may président du ma ko dindi mhm. mais moom mi koy dindi moo xam lu tax mu di ko dindi kon su fekkee ni nit ki day def dara nga ne lii bu ko def mu dem ba jëmmi jamono mu wëlbatiku dellu si ci la nga waxoon yow moo xam sa wax a tax mu dellu si ci moo xam leneen tax mu dellu si ci li nga war a jëkk a def mooy ni ko félicitation parce que loolu mooy courage mhm. xam nga fit du dóorante kurpañ loolu ak ndof la mhm. ñu baal ma ci kàddu gi dóor di ko ak ndof la fit mooy li nga xalaat nga di ko wax ni nga ko war a waxee wax dara wala nga jublu ci dara di ko def dem ba yàgg nga xam ni lii kat am lu ko gën nga am fitu jàkkaarloo nit ñi ni leen lii ma doon def kat am na lu ko gën maa ngi wëlbati ko dellu ca loola jàpp na loolu muy fi loolu moom la war a sargale doomu aadama. alors honorable est-ce que duñu wax ne le na ne li mu defoon njuumte la mu dellu ci waat ginnaaw indiwaat le poste de premier ministre. waaw ah, loolu man li ma ko mën jàpp mooy am courage la ndax xam nga ñu bi ko dindi assemblée nationale bu ñu ko dindi parce que lii dafa nekk loo xamante ne bu ñu ko dindee dafay tardé réew bi ndax coordination bi nga xam moom la état war a am du ko rawatina bu fekkente ni yow da nga nekk réew moo xam ni dañoo tàmm maanaam gis premier ministre moom ko am soxla yenn yi nga xam ne ay euh, li ma ko mën a waxal mooy ñi nga xamante ne ay syndicat ak yeneen yëpp dañuy baaxoo di dem si premier ministre premier ministre dafa am maanaam rôle bu mu war a suyee si l'état ñun bi ñu ko xamee ba pare ñu xam benn cër boo xam ne am nañu ko assemblée nationale mooy article quatre euh, vingt quatre vingt dix sept quatre vingt dix huit quatre muy ay sañ-sañ yoo xam moo ko amoon yëpp bi mu premier ministre bi ñu def daf ko yóbbaale ndax yóbbaale na tey amul maanaam pour woo gouvernement yi mu ñëw yóbbaale na tey mun ñu daane gouvernement yóbbaale na aussi tamit li nga xam mooy déclaration pour générale te yooyu yëpp dafa nekkoon si moomeelu ak li nga xamante ni mooy sañ-sañu assemblée nationale premier ministre daf ko yóbbaale woon a a yokk mais waruñu ko la ko ñun dem moom la constitution bi may mu def premier ministre ne dindi na ko yéen la ngeen si man mooy ngeen ñaawlu ko waaye moom la constitution may mais li nga xam ne lañ si ñaawlu rek en tant que nit koo xamante ne citoyen nga di xool comme ñëpp mooy dafa am loo xamante ni pour man bu ñu ko def dañ si war a waxtaan ak ñu ngi ko war a waxal moom la yàlla dogal ñu fal ko mu tax dafa war a dafa woote fast track deux cent yi fast amul situation bi lépp bloqué économique ak santé tout kenn xamutu fooy teg sa tànk ñun nekk assemblée xam nañu ko ndax deux lois de finances rectificatives indi nañu ko assemblée nationale fi may wax yow ñu ngi yore ay bor yoo xam kenn xamul nu mu toll mun ñu ko fay ba pare ñaareel bi li war dugg kenn xamu ko buddi mbirum agriculture mbirum pêche mbirum lépp am na si ay jafe-jafe kooku bu fekkente ne indiwaat na poste premier dafay wan kan ñun lan doon xeex ni bu mu fa amee indiwaat na ko léegi na la kaa mooy lan la si toftalaat loolu mooy li nga xamante ne moo askan wi aussi li nga xamante ne mooy condition bi nga xamante ni aussi mi ngi koy caax-caax loolu tamit luy ñaaw ndax jàpp naa ni am na loo xamante ni boo ko dee def da ngay laal condition bi te moom fii ñoom ñëpp dañoo taxawoon ne Ablaye Wade ni muy caxat-caxatee condition bi dafa bari loolu a sàmm te ne dafa bu fekkente ne da nga koy laal di ko laal di ko laal chaque ñaari at nga laal juum si waat ginnaaw waaw mais man cest à njuumte gi moom nangu na ko ndax doo déggee communiqué dem conseil des ministres man avant ñuy def communiqué bi xam naa ne instance maam poste premier ministre day ñëwaat. Ah xam naa ko un avant ñu koy def. xam naa sax kin fa war a fal. loolu lépp da lay wan la rek kan lañ fa war a non loolu du lu ma wax kilifa loo xam ne dafa am ñu ma yaakaar am ñu nekk sama ginnaaw mais du wax loo xamante ni accès gul fii mais man xam naa ni parce que premier ministre ña ma sa waxaloon ku si mel ne président groupe ay miiru ñi ngi barki dem nee ko parce que day ñëw te boobu dama te boobu Euh, euh, ñëwagul conseil ministre mooy sama témoin toog nañ commission ma ne ko poste premier ministre président dana ko indi xam naa kam fu war a fal loolu wax naa ko président Aymerou mooy président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar li am solo mooy ñun dafa am fu ñu doxee dafa am tam lu ñuy yëg te xam na ni président bu demee ba tële dafa am lu mu war a waxal ñu koy joxaat maanaam fi mu war a tegal muy raay bi comme li Serigne Mbacke wax ban koy dindi moom àndu woon bi ñu ko dindi bu ñu ko indiwaatee mais ñun ñëpp tey duñ ko wala séeréer ndax loolu bokk na si li nga xamante dafay dëgë dëgëral dafay taxawal démocratie ci yoon mm-hmm. ndax tey ji ñun li ñu nàkkoon assemblée nationale delluwaat ne ko te loolu mooy suñu gëdd te loolu noo xeex ndax tey bu poste premier ministre ñëwaatee tey nguur gi bu duxul mais bu ñu neexee wax ñu nan euh, nan tas gouvernement bi tey danañ soxla maanaam heure boo xam ne weer wu nekk ensemble dana am sañ-sañu boo gouvernement mu ñëw maanaam wax li nga xamante ne population bi dana am sañ-sañu aussi tamit li nga xamante ne maanaam mooy euh, wax ak premier ministre mais loolu la déclaration politique générale nga xam daan xam orientation ak débat fi nga xam ne fu la premier ministre jëme réew ah, mais loolu ba fekkee dikkaat na nag mm-hmm. loolu duñ koy salee ñun ñi nga xam ne nag parlement tey jii si ay 17 ba ma fay jógee wax nañ dañ ko indi euh, ci assemblée procédure d'urgence lay doon bu ñëwee dañ ko wote man musuma wote procédure mais procédure loi bi di dinaa ko wote ndax dama ko dama ko. xeexoon dès le départ alors Abdourahmane euh, nan la war a def tey